Bombardier ak Eumeu seen yaakaar naa combat revanche la woon Gaston Mbengue moo ko tëggoon tey nag ñëw nañ CNG fekk si fi ki nga xam ne mooy la grand ménager di Aline Gueye di nit ku baax nit ku yaru nit ku am kàddu ci li nga xamante bi ni wax dëgg yàlla sekk na ko doomu aadama yi tey nag dama ñëw bett ko fekk ko fii CNG <laughs> fas yéenee waxtaan ak moom ci combat bi yaakaar naa ni mu demee mu ngi noonu Aline Gueye yaakaar naa ne nag bokk na ci. ménager yi nga xamante bi nii mbër yu am coow rek la yor xaw ma man nu mu demee noonu te bu leen di engagé <laughs> jinne yi la yor maa amee topp ma bu ko defee ma jege ko ñu waxtaan ci lu yaatoo yaato asalaamaaleykum. waa ñaari Mohamed yi maa ngi leen di ziar. ñu ngi lay ziar bu baax boo daan maa ngi leen di ziar bu baax a baax a baax. naka yi waa sant rek sant yàlla rek sant yàlla bu bër. waaw naka dëkk bi. waa dëkk bi moom xanaa di ñaanal suñu gaynde yàlla may leen ndam rek fi mu nekkee ñun ñëpp dañuy mobiliser wu léegi dem stade jàppale leen waaw. booy de nee na nee na Mohamed Salah jam ñaajo lan lay xaar. non kooku moom li ñu naar yi defoon yëpp daal man nee naa gars yi bu ñu fi sànni xeer bu ñu jël lance bu ñu jël dara nañ leen yuuxu ku ci téye bal rek yuuxu ba nga énervé waaw coow li moom noonu la nañ ko jaral mais benn fistu damay fistuger rek fédération sénégalaise de football ci lenn yu mel nii bu amatee match faar dañuy bàyyi gi bii dañ koy yombal xale yi ñooy supporter kilifa ñi ñuy jox ay billets ñooñu bu ñu demee ñu toog benn coin toog jàpp seen njàmbur mais xale yu ndaw yi di ñëw nii fan si club yi mbër yi ñiy ànd ak mbër yi genre yooyu nga yóbbu stade nga dañuy taxaw 120 minutes mën nañ ko taxaw di yuuxu di leen motiver ñooñu ngay jàppale mais jël billet yi jox ko ñenn ñi xale yi ñëw di jënd billet amuñu billet Mali demal Mali seen match yu passé 1000 francs lañ jaay billet 1000 francs ñoon na ñun nag billet bi gën a yomb lu muy jar ay 3000 ay mille pour lan te match qualification. Mm-hmm. nañu xoolaat li ñuy def. Mm-hmm. ñun du fut du du làmb rek la ñuy def. Mm-hmm. man ci football laa jëkkee man président zone laa ni may wax ak yow président zone laa yàgg naa ci football. donc ñoom fédération nañu xolaat bu baax li ñuy def. lii nag une première la xëy na lu leen bett la. te nee nañ lu la bett man la nañu xoolaat bu baax a baax li ñuy def. voilà surtout match qualification ku moom moom du affaire caaxaan. macha allah yaakaar naa ne loolu am na solo kat lii moom wax ko moo gënoon bañ koo wax <laughs> mu nekk loo xamante bi nii am na solo trop. wax dëgg yàlla Lions yi ñu leen di ñaan rek nañ gën a nañ gën a yokk affaire yi te xam ne wax dëgg yàlla victoire bi moom tey soxal nañu trop nekk na victoire boo xamante bu ñu ko amee dina am loo xamante ni dina def ci équipe bi parce que match du caaxaan. deux rek baax na deux rek muy score bi bëree yooyu deux rek ngeen mënee am trois sax baax na mais Guèye yaakaar naa dimanche fii passé dellu si woon nga fi ren yàlla dogal na am nga fi ñaari combat le le 2 vie ak le 27 mars nan ngeen doon waaje combat bi. Euh, waaw mais wàcc nañ ko comme ni ni ñu waroon waaje te combat bi sax ni ñu ko waaje waaje wuñ ko benn combat. bu ngeen bu ngeen gisee parce que xam nga nga bëreeg mbër mu daan la. booy bëre booy bërewaat ak moom vraiment da nga war a indi. entraînement bu mat sëkk. indi ko même bu la daanee amateur yi seetaan xool xam ne kii de lu mu war defoon na ko waaye bëree ba pare ñu daan la ñu ne la accam loolu rek lañ doon bañ moo tax ñu entraîné rey suñu bopp li ñu waroon def yëpp ñu def ko yàlla nag moo yore ndam daal di jox suñu adversaire ndam. muy 2-0. ñu koy félicité encore. Omar Sène di ko wax mérité na ko. parce que jóge na si ñaari combat yu metti euh, daanu. ak dëkk ba nu mu jaxasoo. xëy na bu daanuwaatoon dina gën a metti ci moom. yàlla rek moom mooy dogal. jox ñu ñun premier janvier dañoo def lu rëy. àdduna bi yëpp kontaan si ñun. donc tey bu yàlla ñëwee jox ñu defet dañuy accepter suñu defet rek. ñaanal suñu adversaire ñun nag ñu continuer liggéey nii may wax ak yow sànq. Mm. Bombardier ma ngi ci entraînement yi. macha allah sànq rek maa ngi wax ak moom mi ngi entraînement. donc pour te dire que ni. Mm. ban ban philosophie la am. Mm. ban maturité bu muy doxe mm-hmm. donc donc ñun daal defet bi mi ngi suñu ginnaaw. Mm-hmm. waaw. <laughs> macha allah mais man tamit am na benn affaire boo xamante dinaa ko rafetlu. encadré mbër nekk ménager wam bu la neexan man ngay dajeek moom stade wala ngeen di déggante téléphone mais le fait que ngay déplacé wu dem ci open press yi jéem a jege boo yooyu loolu noonu yéen ñaar seen diggante lan la ba chaque jour da ngay jege bu dul làmb rek da ngay assister chaque jour. xam nga Modou man damaa bëgg man du ma duggantu lu ma xas ba dugg rek dugg naa ci. boo ma fekkoon ni ci football. na defoon football rek laa xam. ba ma fekkee ci làmb même chose ba ma fekkee ci boxe. même chose ba ma fekkee ci karaté da ngay defoon même chose lu may dugg damay dugg bu mu jeex. ma yore mbër mu mag ba ak mbër mu ndaw mi laa yemale képp ku ci am bés dama lay taxaw li ma war a def li ma a ak yow dama koy def mais nag day fekk nga déggal ma parce que man bëgguma sànni samay wax waaw mbër moom soo ma déggalee li ma lay sant nga koy def non foo taxaw maa nga fa loo bëgg dinaa ko def mais li may bañ kay mooy ma lay wax doo def li ma lay wax mais boo tap boo ma toppee rek di nga dégg daal parce que man nag yàlla def na bëri naa waaw bëri na toj naa mbapat yu bare waaw waaw <laughs> waaw ñu si bare xam nañ ma si lan mm. donc euh, man athlète mënatuma nax waaw athlète mënuma nax donc donc euh, am na lu ma ci xam tuuti daal mm. voilà mm. Mm-hmm. macha am na solo combat Laurent bi passé rek gis naa mu daw mu daan ba pare rek daw kottu waaw parce que boobu <laughs> euh, Laurent dafay bëre ñëw ñu takkal la yenn téere yi nga xam ni téere yi mat na ñaari kilo mu diis trop ma xool ko mu diis te boobu jël na avertissement yi nga xam ne bu jëlaatee benn avertissement day yàqu si laa dagg laa ngi woo ko mu ñëw ma dagg téere yëpp mu ne ma père looy def nii <laughs> aw la <laughs> père looy def nii ma ne ko sëriñ bi nee na ma ne ko sëriñ bi tey man maay sa tekki lépp mais ma tekki lépp ni ko léegi xam ma sant demal nga jàpp waa ji daan ko ñu ñibbi ñun dañoo doyal mais mu dem mais gis nga téere yi mu ko téye sama loxo dafa sama loxo dafa mel ni kuy congelé non seulement diisaay bi mais seddaay ba mu sedd diis poids boobu dégg ko après lu muy wax naan waaye père yow man ki ma doon takkal téere yi nee la ki ko takkal téere yi sax da koy porter plainte. <laughs> nekk loo xamante bi ni am na solo mais bi ngeen dugg see ci biir stade bi yaakaar naa ne seen adversaire yéex naa dugg si man sax dama yaakaar ne woon seen jinne ju mag ji moo moo ko padd si yoon bi de moo ko téye. <laughs> Ah, non non non xam nga ay tegtal la. Mm. des fois tey euh, ñu jox la heure sàngam ni la ñëwal nga ñëw heure bu gën a gaaw. Mm. man nag damay préférer toujours samay mbër di teel a ñëw. Ah. soo teelee ñëw. da nga am sa temps doo parax paraxi téere bu ñu la jox di nga ko takk saafara boo war a diwoo di ko diwoo sa loo war a sangoo di nga ko sangoo da ngay am largement le temps mais dem ba toog ba dernière minute tey jóge mbuur fu mu jógee dafa sore toog bu fa toogoon ba dernière minute mu ñëw fii di tardé ñu koy dagg ak yooyu jee weesu na foofu moom léegi mbëru référence la xale yi dañuy roy ci moom bu waxee xale yi dañuy roy ci moom bu bëree xale yi dañuy roy moom entraînement booy ñooy bàyyi moom moom du bàyyi. Mm-hmm. donc ku mel noonu toujours lu muy def da koy bëgg a teg ci yoon. loolu moom moo tax toujours affaire am noonu la. dañ koy tooñ ci heure buy bëree dañ koy commencé commencement lamb ba mm-hmm. fin lamb dañ koy tooñ. mais doo ko dëgg mu mu réagir. Mm-hmm. lamb ji passé suñu adversaire ki koy sotti gàllaaj sotti sotti na ko sotti na ko ba mbar ji. Mm. arbitre di gis nag moom la arbitre doon kaas noonu. yooyu yëpp am na fa tey bu doon beneen mbër day dóor waa ji. lamb ji mën na fa yem mën na ko dóor mu gaaju lamb ji yem fa voilà très bien yooyu yëpp day toj luy toj lamb la te loolu nag CNG ñëw si war a jël seen matukaay xool bu baax soit dañuy am benn zone bi nga xam ne si digg géew bi bu ñëwee ñuy sotti galaaj ñun la fii nga war a yem waroo ko dépassé parce que sinon lii li am keroog xëy na bu amee ci beneen mbër histoire dina fi am te yooyu yëpp dañ koy daw voilà voilà ku mel na euh, Bombardier nag moom tax toujours damay dañ koy sant di ko gërëm chaque jour mi ngi jàngal xale yi fair play chaque jour mi ngi jàngal xale yi discipline donc loolu daal super roi laa koy woowee parce que li mu def kenn defagu ko nekk deux fois roi des arènes ah kenn kenn defagu ko mm. ba pare bëre ak quatre génération mm. bëre ne bëre na ak ñu ko mag mm. bëre ay moromam. Mm-hmm. bëre ak rakam léegi mi ngi ci jarbaat yi jarbaat mooy ay yom Jean Sa ay rëg-rëg ñooñu ci suuf te ñëpp lay bëreel ñëpp lay may chance. la may chance la preuve laajal Sa Thiès ba mu demee dëkk dëkk leen ñoo ak moom Umar Sène yëkkati ndënd bi teg. Mm-hmm. dañu ko non yow ëmm du la may chance macha allah ni la ko wax. te loolu lu dëggu la ci moom yàgg na ko wax nee na xale yi ñëpp lay bëreel donc Bombardier daal référence la mention spéciale. macha allah macha allah wax dëgg yàlla man sax sama yaram baa daw parce que yaakaar naa ne. nekk na loo xamante ni tabi nii si làmb yaakaar naa ne bu fekkee ne am na benn médaille wala benn ndomb bu ñu koy takkal lutteur bi nga xam ne moo gën a fair play yaakaar naa ne ren war nañ ko ko mën a nommewaat parce que na làmb làmb ji ah. loolu mooy defar làmb du làmb ji rek la sauvé de. Mm-hmm. suñ ba ñuy bëree ak Balla. Mm-hmm. Kaamu Balla ñëw nañu fekk ñu fële sànni fa lapin tuur seen i gàllaaj suñ leen toppoon xëy na sax làmb ba doom ah waaye moom toujours day bëgg discipline ba ñu ñëwee ñun war nañ dem ci biir géew bi mais Balla bu mu ñëwee. nekk na ci bi géew bi lu mat 45 minutes lépp ñoom dafa toog rek jël chaise am toog jàpp njaamuram. bu doon beneen mbër mën na fa dem ni sama heure jot na damay dugg. mais moom lépp lu muy def discipline la ko bëgg defee. lépp lu muy def dafa bëgg xale yi di copier ci moom. donc mbër mu mel noonu li nga wax dafa am solo. mbër mu mel noonu. CNG da ngay jël ku def lu mel noonu. pas bombardier rek sax. mbër dina def acte bu rafet bi nga xam ne da nga koy jël décorer ko. ñu ne lan lu tax ñu décorer ko. mbër sàngam def na acte bu rafet bii lii mu def nangam xale yi dañuy jàng dañuy copier si loolu parce que dañu gis benn xale bu ñëw ni man may Balla gay kii ni maay Bombardier kii ni maay Eumeu Sène waaw ci jëf ji di léegi nag yooyu il faut CNG di ci gën a liggéey di xool mbër mi gën a fair play di xool mbër mi mbër mi nga xam ne jàpp nañu moo dàq bëre nga décorer ko mbër mi nga xam ne combat bi gën a neex si saison bi nga de woo leen ñu ñëw nga décorer leen muy xale yu ndaw yi ak ku mu munti doon parce que ñëpp ay mbër lañu. ñëpp voilà très bien yooyu yëpp moo tax dafa am solo il faut CNG di liggéey ci yu mel noonu. Mhm. te CNG bii fi nekk man jàpp naa ni président moom comme am écoute la. Mhm. ko am la mais am na membre CNG yi ci nekk ñi nga xam ne ñu bees lañu. Mhm. dañ leen war a former waat si làmb dañ leen war a former parce que c'est vrai que indi nañ leen fi ay nekk nañu ay bees mais ba tey ay novice lañu. waaw te ñooñu ñu jar nañ ñu formé waat leen ba ñu gën a xamaat bu baax a baax a baax a baax. Mm-hmm. voilà macha allah yaakaar naa ne temps bi bëriwut fi mu ne nii yaa ngi waajal match bi yaa ngi waajal mbuur léegi fi ñuy jeexale rek mooy combat bi nan la ko sa mbër bëree en tant que du ma ne sax en tant que wu bombardier mais en tant que lambologue bu nekk si biir làmb pratiquer bëre nga décortiquer ma combat bi première site bi ba deuxième site bi bi jël bi amee nan lañ bëree ñoom ñaar. waa xam nga ñoom ñaar ba ñuy ba ñuy demee ëmb côté gauche am la bëggoon jaar. Mm-hmm. Bombardier teel na xam ne ni ëmma li ko yëkkati mooy fët bëtt ko côté gauche. mu fermer peut gauche bi. ba pare taxaw di ko xaar pour dóor ko droite. ëmma aussi di xaar pour dóor Bombardier gauche. moo tax boo xoolee loxo ëmma gauche bi toujours ma ma ko aj ca kaw di xaar droite bu Bombardier. Bombardier di xaar moom it. gauche ëmma. loolu lañ doon xaar ba ñoom ñaar bañ ne runkum. jàppante mooy premier chute bi ngay wax noonu. ñu dem ñu bare ñu ngi naan arbitre lu tax mu sifflé. arbitre war na sifflé foofu. waaw parce que lu tax mu war a sifflé mooy. Euh, règlement bi dafa wax ñaari membre la wax waxul ñaari tànk waxul ñaari loxo mais ñaari membre c'est-à-dire tey sa benn tànk ak sa benn loxo même bu génnee dafa war a siffler mm. donc te boobu seen ñaari tànk sax mi ngi si donc donc boobu yoon la mm. pour ñenn ñi ñu ko xamul te loolu aussi CNG dama leen di reprocher loolu nañuy jël règlement yi di ko tappe di ko jox écurie de lutte ak école yi ku ñëw de affilié ñu yëkkati jox la boo demee nga jàng ko dina ñoom lay dimbali bu boobaa bu boobaa chute yu mel noonu yu mel noonu yëpp nit ñi nañ ko xam du jar waaw boo xam di ko xam lépp di nga ko xam yooyu yëpp ñoom it seen liggéey leen il faut ñu def ko ah deuxième accrochage bi. mais première bi dóor tànk bi dóor tànk bi bombardier. bombardier def yëpp boo ko xoolee moom dafa xam Eumeu gis nga li li ñu bëre fii. entraînement am loolu rek la doon bëre moom dafa mel ni ko xam ne lii la lii la indi. waaw daf moom moom vraiment honnêtement loolu la doon def. jàppoon na ni. ëmb soit da koy jéem a rëppaloo. wala mu jéem ko nuuju. mais première erreur bi mu def rek mooy loxo bi jàppul. fi ëmb seen jàppee ndengeñ xam nga ëmb seen. boo xoolee premier chute bi. ëmb mm. bu muy def trois appuis. Mm. loxo gauche am ma nga ca kaw. ci kaw waaw. mais tey Bombardier deuxième chute bi. bu mm. jàppoon benn loxo rek. bu ñaawee ba ñaaw ñaari trois appui lay def wala deux appui. Mm-hmm. mais jàppul fenn ëmm dafa jàpp ba pare jël. Euh, ndengeñ ko ca gorge ba. Mm-hmm. waa boobu nag la Bombardier waroon ni tekk xam ne am na lu muy waaj mm-hmm. mais c'était très rapide. waaw c'était très rapide bon loolu moom moo tax. moo tax trompeur dëgg la. non non Eumeu dafa mën bëree loolu dañ ko koy reconnaître eh. parce que man jàpp naa ne Eumeu Sène bëreegul sax parce que ñi ko seetaan mbapat mhm. xam Eumeu Sène bu baax. Mhm. la mu daan bëree mbapat ak li muy bëree fii c'est diamétralement opposé. waaw ku mën a bëree la loolu dañ ko koy nangul. Mm. Bombardier boo ko seetaanee mbapat la mu daan bëree mbapat moom. Mm. ak lu muy bëre fii sax du benn ñi ko xam dëgg dëgg dëgg moo tax soo déggee benn nit naan Bombardier mënul bëre ay ree da lay jàpp sax mm, parce que da ngay xam ne kii ndaanaan la mais bés booy daanu mm-hmm. cuune ngay doon waaw moom moom liñ ko daane xamoon na ni loolu lañ koy loolu mën nañ ko ca daan mais nag excès de confiance bu ëpp mm-hmm. bokk na ci li ko gën a daatal ci combat bi waaw parce que benn loxoom rek bu jàppoon dara du am dara mënul xew mm-hmm. Eumeu Sène ci premier accrochage bi xëx na ñëpp gis nañ ko mu dem naani ndox ñëw jël avertissement faalewul arbitre bi yooyu yëpp ma ngi koy def pour récupérer xam nga mbër mu mag nag des fois daf si am solo yu mel noonu tey parce que ma sore woon malheureusement Bombardier maa ngi woon ci ginnaaw maa ngi naan ko deuxi ci deuxième deuxième kii bi teeyal parce que boobu ak fugg fugg bu mu indi woon waa ji dara nekkatu fa mais toujours euh, mbër mu mag day day day lax mm-hmm. day lax clé boobu waaw sore woon naa ko trop mais boobu aussi su ma ko jóge woon maa ngi koy wax loolu mm. même bañu accrochage boobu mu amee maa ngi nekk ci ginnaaw maa ngi koy yuuxu jàppal jàppal jàppal mais déggu woon c'est parce ko sore déggu ma woon c'était trop tard mais lii yëpp ay jàngat la làmb mm. parce que Eumeu war na daan Bombardier parce que fa mu jóge la mm. waaw Bombardier premier janvier def na lu am solo loolu yëpp làmb la tey ba action yooyu amee man avant yi ba ñuy wax waxi même même bu dee trois appuis kenn def recours lan la wax moom. ma ne ko lu tax mu ni ma ëmb mhm. champion la sama rakk la war naa mën a moom mu daan ma. Mhm. donc jàpp naa ne même bu dee trois appuis man buñ def recours. nañ nañ ko nangul victoire am nañ ko nangul champion. xam nga loolu grandeur la. loolu grandeur la moo tax nee naa la Bombardier beneen affaire la. beneen fu la ñuy wax fu koy jëleete. non beneen dimension la te moo tax man ne xale yi il faut ñuy jàng lu bare ci moom il faut ñu jàng lu bëri bëri bëri ca yarga ca jeer ga ca respecter entraînement am ca bu ñëwee ci làmb comportement bu muy indi ci làmb yooyu yëpp xale yi war nañ koy jàng bu baax a baax a baax a baax a baax vraiment maa ngi koy encouragé bu baax a baax sama mbër la maa ngi koy encouragé bu baax a baax di di kontaan nag trop ci moom parce que xaaruma woon tey mi ngi entraînement moo tax sànq bu ba ma woowee sànq nekk entraînement ma xool ko mu nekk entraînement dama ni non kii kii bokk ci quoi <laughs> te gis nga moom MM moo tax même xale yi MMA bi ñuy def baax na. parce que au moins di da nga siy génne beneen technique d' entraînement. Mm-hmm. ba pare def trois séances par jour. si mbër mu am quarante cinq ans jafe na. ñun Sénégal boo amee yenn âge rek ñu ne màgget nga. Mm-hmm. boo xoolee moom ñi mu ñi mu maaseel ñëpp bàyyi nañ làmb kenn mm-hmm. sañatul taxaw di bëri. moom mu ngay ne di bëri ba tey. bon donc léegi Sénégal rek ñun ñoo fi am sport bi nga xam ne naan boo amee âge sàngam na bàyyi. nañ bàyyi affaire âge. nañ bàyyi mbër mu nekk. nga dem boo tëlee yow sa bopp yaay xam sa bopp ku xam sa bopp nañ leen bàyyi ñu kon ne parce que sinon dañ dinañ dagg carrière mbër ma nga xam ne waroon na mën a demaat ba ci kanam macha allah yaakaar naa ne bu nit ñi xamul sa njëgin nga xam li ngay jaay sa bopp géy nag euh, maa la ko baal maa la waxoon benn question mais nag léegi Bombardier ñaari ñaari ñaari kii la amoon ñaari contrat bu njëkk bi Balla Gaye daan na ko deuxième bi Eumeu seen daan na ko léegi fi mu ne nii lan moo des du bëreeg Lac de Guiers Tapha ngi fi Gris Bordeaux am na combat ak Balla Gaye ñëw na samp ndënd rëg-rëg mi ngi fi sonal leen torop le grands di la ñaan sans chaque jour léegi fan ngeen jëm ak ñan ngeen pare pour bëre ñu billaay maa fi gën a bëre adversaire si làmb ci maag tafa boobu ngay wax combat la cey cey boobu combat bu neex lay doon maag rëg-rëg combat la bu neex lay doon maag Sa Thiès xam naa ne boobu boobu sax est-ce que du jiitu parce que moom daa. Sa Thiès moom moo bëriwut ak ko ñett yoon mu ne grand waxal grand bi force mu may ma. non moom moom moom moom dóor yi ma yéene yi ñu yéene woon kii foog ñu dóor ko Sa Thiès parce que booy boobu daf ñoo lakkal <laughs> yab ñu booy boobu moom moom il faut il faut ñu am lu ñu def ak moom. pourtant ngay wax chaque jour moom la bomb day wax de. moom kaay ma wax la leen nag bomb ku bëgg Salif la waaw ah, daa bëgg Sa Thiès waaw ah, bëgg Sa parce que Sa Thiès malgré fugg beeg booy bu yaru la mbër mu xool ko xool ko doo ko dégg si dara lu ñàkk fayda doo ko dégg ci dara te Bombardier dafa bëgg genre mbër yooyu mbër mu yaru dalaa bëgg moo tax gis nga ñii nga woyu li mal nii ku ci gën a dal gën cee yaru moom lay jëkk bëreel. kon de dina bëree Sa ah, moom kay moom. Reug Reug moom da koo sonal chaque jour danaa koy grand kaay ñu bëree. non dinañ bëree non moom bala Reug moom balaa carrière bi jeex moom dinañ bëree loolu et puis jaadu la demande sociale la. te Bombardier lu askan bi laaj da koy def dina ñett ñi ma limal ñëpp dinañ bëre ak ñoom même Gris Bordeaux dinañ bëre parce que Gris Bordeaux yaa ngi fàttali combat boobu xam nga loolu du woon combat loolu du woon combat mu mbas sawaay glissé dem toog boobu ba léegi maa ngi wër Gris te nag euh, Gris foog Gris foog ma te benn combat rek lam te léegi Gaston léegi lu mu xewal mooy ay trois combats quatre contrats lu ma xamul aca ñi ngi taxaw ñun daal daal lu mag lañu gone gono gu ñu sol dina la ëpp macha allah ah. yaakaar naa ne daal man li may wax mooy fu ñu leen di jëleeti parce que du caagi nag tàgg leen mais sénégalais yëpp xam nañ ko ci discipline bi ci yar bi ci mën a toloore ak ku man di doon kon yaakaar naa ne kooku nekk na mbër boo xamante bi ni wax dëgg yàlla bis bu demee ba bàyyi làmb am na poste sax biir CNG am na leneen ak leneen loo xamante bi ni war na koo defaat ci biir làmb parce que wax dëgg yàlla cëram may na ko yaram may na mosoo dégg benn mbër bu ndaw wala bu mag bu xalab bombardier man fan laa dañee ci bombardier bi mu bëree ak tafaatin ba ca bët ci combat bu métti bi mu woote wal fajira xaw ma ban seen félicité Tapha Tine nangu ne am na défaite loolu mbër mënu ko. non moom moom garmi la gis nga moom genre mbër yooyu dañoo raar que ce soit moom wala Yaxya Diop ni ñooñu dañoo raar ci làmb ñooñu dañu amoon benn hygiène de vie bu extraordinaire 22 heures ñoom ñaar ñëpp du leen fekk ci bi ci dem nañ tëddi mm-hmm. li nekk ci Bombardier moo nekkoon ci Yaxya Diop xoolal mbër mu toog quinze ans déggoo muñal loolu lu ko may na lu ko mayoon li ko nag loolu nag xale yi tey il faut ñuy jàng ci loolu mais suñu mbër yi léegi loo ci gis mbër day ànd ak mbër man loolu laa gëm moo tax ndem si yàlla dubalees yàlla na ko yàlla teeru teeru ko àjjana barke yonent bi loolu rek la kaas mu taxaw da ngeen dégg mu ne mbër mbër mbër mooy mbër mooy moromam mbër la war a àndal bu ko masaan wax gars yi yow yow mi xam làmb jóge làmb di nga xam dubalees mi li muy wax lan la te loolu mooy jaadu parce que bu ngeen àndee affaire làmb rek ngeen di wax du ngeen wax leneen mbiru lamb rek ngeen di wax Double Less bu ngeen masaan toog nii timis bu jotee bu jullee nii gee timis ngeen ñëwaat toog nii bu julliwaatee ba pare bu la waxee maa ngi ñëw tëddi na. macha allah na léegi yar googu ñu amoon génération yooyu seen yar googu nekkoon ci ñoom moo ñëw ci ay Yékini ay Bombardier ñooñu léegi nag jamono day dox mm. c'est dommage que suñu génération bi moom beneen affaire la te loolu yëpp dañu war a jàngat. moo tax xam nga boo yow mii seen kër bu njëkk ba sa papa moo daan tëj kër bu guddee mu ñëw tëj këram xool ñëpp tëdd nañ mu tëj léegi nag yow fa la ngay tëdd naan xale yi ku mujjee na tëj xamoo lu ñuy def ci mbedd ma xamoo lu xale yi def ci mbedd mi lépp day dellu siwaat sa éducation donc ñun il faut ñu xalaat suñu xale yi nit ñu yare ñun ñun nañ ko yare suñuy doom nañ ko yare suñuy jarbaat doomu jàmbur sax noonu lañ ko war a yare parce que bu màggee rek dina la gërëm dina xam ni kii lu tax mu doon daj lii ci man lii la bëggoon ci man. macha allah les grands ménages yaakaar naa ne looy tàggoo laa lay wax. <laughs> yow mi ndar képp réew mi ak bitim réew lan ngay tàggoo. waaw mais xanaa di sant ñëpp di gërëm ñëpp di axlu làmb ñëpp ak euh, supporteru Eumeu Sène yi supporteru Bombardier yi ñoom ñëpp parce que fair play la ñu wane fii keroog ñoom ñëpp vraiment.